salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñi nga xam ne dañuy faral di bëgg ay beeru tubaab wala nga bëgg tubaab bi bëgg la am na ñoo xam ne ñu ngi nekk bitim réew di ko faral di ittiwu moo xam nga am fa soxna tubaab wala nga nekk fa bëgg tubaab bi bëgg la ndaxte réew mu boo fa nekkee eh, bëgg waa réew ma bëgg la sopp la jox la bopp foog itam eh, nga am noo noo noo melokaanoo ñu mën laa bëgg lii nag dafa nekk mbir moo xam ne bayru tubaab la benn tam naa leen jox bu fekkee da ngay visé benn tubaab wala bu fekkee da nga bëgg tubaab yu bëgg la bi may njëkk mooy bu fekkee ne da ngaa gis benn tubaab ngay ni bëggante wala ngeen ni sëy foofu da ngay bind fa booyte les kafaru comme ni gisee nga yaatal li ñu si war yaatal noonu léegi yow mi nga xam ne yaa ko wala yaa jigéen ki sa tur moo war a ne kaw moom turam ne si suuf nga bind ko 128 fois nga tëj faay yi faay yi mu ubbi noonu ba pare da ko tëj. léegi su ko defee soo ko bindee 128 fois da nga koy xoj def ko saafara su fekkee ne am nga dara ci moom bu dee ki nga bëgg noonu am nga karawam ci moom wala daraam ci moom daal nga boole ko saafara bu xoojaale ko def di ko raayoo chaque jour ba mu ne di wér de 1528 wala 1111 fa wéetali ci kafara su ko defee nit ki di lay gën a bëgg lu mu mënu ci dara mbir mu am doole la am na ñu ma ko yàgg liggéey di leen ko yónnee bitim réew xam nañ li may wax kon ñi nga xam ne itam dañoo bëgg maanaam fi nga nekk. tubaab bi bëgg la nit ku ñuul sax mën ko def lii nit mën mën ko liggéey si nit ku ñuul mën ko liggéey si nit a amee doole xam nga kuy liggéey si nit ku ñuul si nit weex muy sotti waxuma la nit ñuul te nit ku weex dafa dëgër bopp waaw kon nag lii mën nga ko liggéey si ñaari yëpp si góor jigéen ku weex ak ku ñuul yëpp léegi su ko defee beneen bi mooy da ngay bind fa Boutaliger Kafara 4444 fa Boutaliger Kafara ngay bind waaye boobaa doo yaatal dara ni mu ñëwee si alxuraan nga koy bindee 4444 nga xoj bi bëgg la moo xam sax ku ñuul ku weex lépp di moom mbir mu mbir mu yéeme la te màgg kat mi kasankarakaar nga koy bind soo paree man tam da nga koy saafara nga nga ut karawu tubaab mu nit lu ko may wala nga seet nooy def ba lijjanti ko yow yaa xool dégg nga su ko defee nag soo demee ba am karawu tubaab bi am na am na sax nu ñu koy boolee sax ku laal kaafiruuna ak la xalq samawaati waaye bu beneen yoon la mais bii moom mën ngeen ko def tubaab bi dina la bëgg dina la fonk boo ko boole parfum bu amul alcool ñetti parfum ak karawu tubaab boobu noonu karawu tubaab boo am baax na bu góor bu jigéen boo mënee am ñaari yëpp baax na nga xoj ko ci saafara bi di ko raayoo chaque jour boo mënee di wér de foofu boo utilisé kafa rek 4444 wallahi al azim yow si boppam di nga dem a dem a dem a dem ba ne lii su ma yëgoon teel koo teel koo def mbir mu màgg la ñi may dégg ñu bari tama jëf tama jëflante ak ñoom si côté boobu xam nañ ko kon képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo incha allah rabbi foo mënti nekk moo xam bitim réew la moo xam fii si réew bi fu mënti doon. yàlla dana la dimbali si jaay rek ci baatin mbir mu mag la def leen ko ci anam bu rafet ci farata ñu ngi yem fi ba subaa jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.